الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين بقي نيونغي دلوسي سي تي حديث ام ذرع غيسون نين ديم جيجين جو نيك تي خامني مو نيك جكرم tay ñoo ngi ñëw ci jigéenu ñaarel bi muy al mar'atu thaniya qalat zawji la abussu khabaru inni akhafu an la adaruh in adhkuruhu adhkuru ujrahu wa bujra zawji la abussu khabaru inni akhafu an la adaruh in adkuruhu adkuru ujrahu wa bujrah ñaareelu jigéen ji nee na man li may wax ci sama jëkkër daal du bari bugguma sax wax su ma waxee duma ko bàyyil dara mooy laa abussu xabaru laa bi foofu boroom xam-xam yi nee nañu zaida la moo tax ndaw si ne sama jëkkër bugguma wax mbiram ndax damay bañ bàyyil ko dara ndax góor la gu gaaw ci fase su ma génnee ay secret mu gaaw a mer su ma waxee wax ay fitnaam ujrahu wa bujra al ujru moom mooy su ma ko tuddalee ay newi newi sidditam góor la boo xam ne ñaari baat mu mer ba siddit yi jóg bët yi xonq ci lu ñàkk solo nag lu dul dara puusal kaaf bi may ma ndox defal lii ma xaw a yéex rek siddit yi jóg te góor bu sidditam jógee rek mu ne may naa la baat te bu ne may naa la baat bu yàggee siddit yi wàcc rek mu dellu gannaaw loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne moytu leen mer su ngeen meree taxaw toog leen su ngeen meree toog tëdd leen su ngeen meree jàpp leen wala ngeen naan ndox su ko defee loolu dana ko dindi mu ne ra moom mooy jumbaxam dafa gaaw a newi maanaam li ndaw si bëgg a wax mooy jëkkër ji dafa gaaw a mer te mënul sëy maanaam góor la goo xamante ni daal moom ittewoowul lal lu bari man mii soxnaam la may soxla ci sëy mënuma koo satisfaire booleeg mu naqari deret lool ah kon mbokk yi góor gi yor na ay melokaan yu doy waar ban ak ban gaaw a mer ban ak ban gaaw a wax musiba ban ak ban siddit yu gaaw a jóg ban ak ban bët yu gaaw a xonq su génnee ci bi biti ñu ne kii ku baax la te bu ñëwee ci kër gi man may dee te duma mën a wax melokaanam yu bon yi nekk ci moom jëfam yu ñaaw yi nekk ci moom loolu moom moo tax mu ne su ma waxee waxal ko lépp su ma bàyyee loru kon góor googu ay secret dafa nëbbu ci biti waaye ci biir kër gi moom soxnaam xam na ni kii góor gu baaxul la yal nañu yàlla musal ci jëf jooju kon nag ndaw sii waxam mooy sikk na jëkkëram kon yéen góor ñi góorgóorlu leen wàññi mer ci kanamu soxna yi jigéen ku koy yore doo bari looy mer ndax tooñkat ku ko yore bu yeboo rek ngay faral di muñ muñal jigéen neexut yore ci dëngam ak ki yàqam ak njuumteem ci nga koy nax ba mën koo jëriñoo saa bu amee réaction bu mu def muñal xoola Ali ibn Abi Talib doomu yonent bi Fatima la yor joteek moom bañ fa nekk di xuloog moom génn kër gi bi yonent bi sallallahu alayhi ñëwee laaj Fatima Fatima dafa mer ne ko gisuma ko yonent bi xam ne Ali ak Fatima dañoo jote woon yonent bi génn dem fekk Ali mi ngi tëdd xol bi naqari rangoo ñi tuuru ba sikkim bi taq suuf yonent bi naan ko qum yaa aba turaab qum yaa aba turaab kon nag jigéen ñi il faut ñu muyal leen il faut ñu bal leen ndax suñuy rak lañ suñuy yaay lañ suñuy xarit lañ sa jabar sa xarit la ci sa kaw lal sa wéttal la ci bu ngeen séqee sa rak la ci su ngeen àndee sa yaay la boo demee te moom mu nekk ci gët gi téel la sa doom kon kooku kenn munu koo fay moo tax umar bnul xataab radiallahu anhu doon wax ni sama jabar li tax munuma koo bàyyi daf maa yoral mbir yii mooy togg sama ñam bi may lekk mooy fóot samay yére su tilimee mooy paase samay yére su rasee moo may jox ma naan mooy toog sama wet di ma wéttali mooy tee ma mën a mooy yàlla ndax su ma ko soxlaa lu ma bëgg am ko ci moom kon jigéen jii sikk na jëkkëram yow góor jullit moytul bañ a bokk ci ñooña del neexal soxna si del waxtaan ak moom insha allah soo ko defee rek li nga bëgg di nga ko am waaye dee ci boole nag di ñaan yàlla waaye maa ngi dénk jigéen ñi ñoom it ñu góorgóorlu ndax ñoom ñoo mën a jur doom yu baax ku góor góorgóorluwul ci sa jëkkër doom doom ju baax jigéen day mel ni der day mel ni pajaas day nangu bul nangu ngir sa jëkkër waaye nangul ngir yàlla bul nangu ngir nit ñi li ñuy wax nangul ngir yàlla boo ko defee rek danga am doom ju baax yal na yàlla may leen ko may ñu ko rawatina nag suñu jigéen ñii nga xamante ni ñu ngi ci tas bi ak ñëpp ñi nga xamante ni bokk nañ ci groupe whatsapp yi ak ñi ñuy déglu ñëpp maa ngi leen di wax ni seen soppe laa waaye maa ngi leen di nañu yëg ni maa ngi leen di ñaanal waxtu wu nekk wallaay damay rus sax di tudd tur mais maa ngi gis lépp te ñoo ngi ñaan yàlla te amal na yàlla mën nañoo nangul yal na yàlla fay ñu fayal ñu leen fay mbooloo yëpp yëpp ñëpp yàlla dimbale leen ñi amul soxna yàlla may leen ñi amul borom kër yàlla may leen ñi tasoon yàlla dimbali leen maa ngi dénk jigéen ñi ku ci gaaw a mer boo meree rek demal nga naan ndox fexe góor dañu koy jege dañu koy fóon dañu koy raay dañu koy toppatoo góor xale la soo ko naxee rek jël ci moom waaye boo ko forcé mu bañ nax ko jege ko jigéen bu nekk góor xam nga faiblesse am ci faiblesse ngay jaar pour am waaye bul jaar ci dëgëram am su fekkee dafa tàng baal ba mu sedd nga nax ko su fekkee dafa sedd baal ba mu dal nga nax ko am na nooy demee nooy mel ci moom incha allah loo bëgg dana la ko defal